symboliser moo rëy waaw moom symboliser man nag du ma leen wootul te le temps leen lan moo xew lan ngeen kiiwul waaw soo leen ma soo leen ma yëgalee man dinaa def comme lu ma war def voilà euh, léegi tubaab aussi dafa xam dafa am ay symbole waaw euh, service renseignement yu important ci ci monde bi bu gën a important état américain la lu américain xam ci kii ñeneen ñi xamuñ ko waaw suy ñëwati mu nekk aéroport bu leen bàyyi noonu rek moom rek mu ñëw noonu dafa am ay symbole yu important waaw su ñëw yëgaleel nit ñi le protocole qu'il y a du nit ñi def ko mhm. xam nag yéen ko mel mbugga voilà parce que euh, am na service secret xam duñ comprendre moom mu ñëw muy génn aéroport ni tout seul ak yow ak ay nit waaw même yéen loo bëri déedéet am na officiel yoo xam ñu ngi fii voilà il a au-delà du fait seen sëriñ ak yëpp defam am lu muy incarné et ça c'est c'est l'image du Sénégal qu'il ya voilà il un protocole une sécurité d'État qui peut être ci am suñ ko ñaanee voilà vraiment je suis très content d'être là euh, mosuma leen wax lu tax nag damay waxe Cheikh souvent mosuma ko lu tax man ma jege leen mais voilà di ngeen xam quelques éléments de ça un peu voilà merci jërëjëf son excellence. Euh, excellence euh, docteur Martin ci kàddu yu rafet yi nga mu jëm ci sunu kilifa gi.